asalaamaaleykum yéen waa Paris dégg naa pare ngeen waaye maa leen gën a pare fuuf <laughs> ci kàttanu yàlla le 30 day xew-xew ba fa am daam seen war faa teew ak rakkam bas cung ànd ceeg asan pen loolu dina doy waar trop yow nag raxu da nga bëgg waa Paris ba defal leen cadeau bu rëy bii waa Paris dina la delloo njukkal ndax xam naa ni le 30 incha allah foofu ca pale des congrès bu Montreuil man daam seen su ma fa yegg seeg samay feem te newoon naa leen samay riim dinaa ci am prime duma def ben crime ku mim laajal Abdou Karim liiru siru ba don xiiru ko ñom Basiru man maa ko ko ñoom Miniru de Wolof Njaay nak neena ñax ak salade duñu ben ku bi ne garal te fi la foot fe te futul ay tuñ te ñànkatak nak bu laqato di jëw soos ko togo sari ah le 30 lay don foofu ca palais des congrès bu montrer yi man dam sen dina tew ci kàttanu yalla mais raxu lu tax nga bëgg wa Paris cadeau bi nga leen defal waxuma dara nak nga leen koy defal entrée 25 euros ay way ñet nit nga boole daam seen bastum nooy moytoo sa noonu mu naan wuy mais daam seen war a ñëw dàq yooyee nekk Paris gépp Assane Pène nag nee na du leen wax lan lay def kon na gars yi rendez bi le trante la foofu ca palais des congrès bu Montreuil ca Paris man day pare naa waa pare di pare ngeen daam seen a ngi nii ci yoon bi raxu billaay yaa bëgg waa Paris ñi amuñu sa de maa ngi nii ci yoon bi